Cheikh Alioune Sall bu euh, Ali Amran waaye sëñ Alioune Sall moom nel bu Sénégal rek kon ñu ngi koy ñaan mu ñëw sànni quelques kalima incha allah bu ko defee ñu doog a jublu ci euh, déclaration yi. imam balaa Oustaz Alioune Sall di jël kàddu ma annoncé ne soxna Ourey Thiam dafa jëndoon léegi tableau bi un million un million yi agsi na alhamdulilah bu dee docteur Mouhamad Saïd Ba aussi moom moo jënd bu cinq cent bi moom it jot nañ euh, bu deux cent bi nga xamante ne moom nga annoncé woon itam am na ku ko jënd léegi deux cent mille xaalis bi agsi na donc ñu leen di gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla fay yiwu takbir Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, Palestine. allahu akbar walillahi alhamd. waaw ki nga xamante ne moom moo jënd tableau 200000 bi muy tudd Soxna Awa Thiam donc Soxna Awa yal na yàlla fay la yiw li nga taxawoo sa mbokki palestiniens yal na ko yàlla subhanahu wa taala taxaw jërëjëf imam Fadla. bismillahi rahmaani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu def leen nii seen loxo wax leen ñun ay julit lañ ay julit lañ yàlla yàlla mooy sunu boroom mooy sunu boroom muhammad Muhammad mooy sunu yonent mooy sunu yonent alquran alquran mooy sunu téere mooy sunu téere Palestine Palestine Palestine Palestine Palestine Palestine nooy sunuy bokk nooy sunuy bokk allahu akbar allahu akbar Palestine li ñu jaaxal mooy li nga xaw a sori takbir allahu akbar bu fekkoon luñ mën a dox la Palestine la ñuy jullee timis Allahu akbar bu xawoon na gën a sori fa la ñu gay fekk ndax fi nga ne ci xol yi jullit yi ki bi jullit yi moo la fa def Allahu akbar nadxulanna al masjid al haram ba yonent ba jógee fa la jaar daje gaa yi door a dem fa mu jëwoon loola tooyal ne képp kuy jullit àgg na ci sab li ñu jaaxal rek mooy li nga jegewut waaye nag sori gi dunu tee nag nu taxaw ci sawet ànd ak yow noog yow ba demaat ca jàkk ja kàbbar fa li xam fa julli fa li feeg loolu amul dunu taxaw delluwaat ca jàkk fa li xam fa kabar fa julli fa jamono jotoon na yi nekk Madina ab xeex nekk ci biti waaye teewul ñu taxaw taxawaay mel ni seen taxawutaay bii ba sunu borom ne alif laam miim xulibati fi adnal ard wa hum min baadi xalabihim sa sayaxlibuun sayaxlibuun wa yawma isin yafrahuuna bi nasrillah mbokk yi jotaay mel nii kenn du wax lu gudd da wax ñaari baat jox sa morom wax ñaari baat loolu sama baat bu njëkk dama ñëw sama ñaar loo baat ñoom oreyatu dañoo jënd tableau bee des na fi ay tableau man nag dañu ma lu ma jëndee tableau ne bu waree kuréel gi damaa koy jënd waaye yéen ñi ci mbooloo bi bu ngeen dajalee li fi nekk lépp jox na ko ñu ramassé tableau yi ci des def leen ko nag koo ci xam ne bu oto bi taxoon ñooy Palestine aywa Palestine Palestine nga yéeg dagg paas dem fekk ma fii ak sa paas ku joxe paas rek mel nga ni dem nga ku joxut paas nag demoo fenn jërëjëf bi des na 43 personnes. ça sa pass. sa pass ñëw leen ku bëgg a dem rek na indi passam de. boole waay. mu tëleel ma defal ma ko fii a nee na dana dem ngi nii sax ma suuf dem car def na quarante personnes waaw Aboubacar nee na dem caméraman yi ñëw leen paasu leeral ñëw na mi ngi ñëw kon xam ne bu ñu doon dem nga topp ñëw sa caméra film la ñuy def ah, ñëwal fii ci paasu leeral waaw. waaw leeral TV paasam ñëw na. Ali TV maa koy joxe. maa joxe leeral TV. leeral TV ah. joxal naa ko ba noppi. inamal amul bindiyaat am leen yéenay dem Palestine. naka leen paas yi ñu dem. am yeneen paas ku ñëw yàlla na nga dem ku ñëwul ñaara lu <laughs> paas paas ndax ndax ndax ambassade ba dem na ambassadeur bi. demagul asafir asafir نحن مسافرون إلى فلسطين والناس يجمعون الجاع التراكب لدفع السيارة نحن في انتظارك للذهاب إلى فلسطين الله أكبر الله أكبر نولن تي بارسي نيدم فلسطين da ngaa bëgg dem Palestine yaa ngi bébé. xale bi daa bëgg dem allahu akbar da ngeen dem. kaar bi feesul jëmb faal. jërëjëf nuyul ma sëriñ bi. xale bi mu ne daa bëgg photo Bintu Sara daa bëgg dem Palestine. xale bi da joxe na daa bëgg photo ak yow. kon nag ma joxe kàddu gi ngeen continuer joxe paas yi. yàlla yàlla defar seen i mbir defar suñuy ci nag ci suñuy jigéen ñi paas jigéen oustaz paas jigéen shukran lakum barakallahu fikum ya cheikh kon ñu continuer programme bi